wal taatu fii bi nasratin ci taatu nasra ah Cheikh dañ ko laajoon démb ci wax jësul yi ca lañ nekkoon jamono ah léegi kon mbokk benn ak benn asaabu Cheikh ci njiit waaye taf si cam nañ ci jaayeen maan bi ci ñaar lu xaaj bi ci xatam ñaar téeméer ak juróom-ñeent ci daara asaabu Cheikh ci dégg bi mu ne su ma waafaanaa dikkal bi coom bi zalika min alimil asaabi ci méttitu mbugal al abadi yi xam ne métti bu jeex la alafi métti boo xamante ni laa tatiqulu atan alxolkat yi wasoo melal ko ak lan <clears throat> wa maa aqabana ak li xam ne moo ñuy uutu bi sababi saalika ci sax loolu bu yàlla defee méttit bu ëpp xel dana ca gannaawal tegta mi ne na mi ay xiwal asarmada yi goo xam ne dafa continue dafa ala si xiwal goo xamante ni yuddi yi suuf day jaaxal ala xol a xel yi sikkuroo tudd ko waxtaan na nekk sukkuroo sant sallallahu alayhi wa sallam xale naa war nañu fi xaasa ci li xayra mottalaayi mbokkam di gën war nañ ko sant ci li ñu jàppale ci loolu cant boo xamee ci duñ xam fan la yëpp eh, raddat zalika ndax delloo loolu ilal xaqi jëm ci dëgg yépp nag day dellu ci yàlla subhaanahu wa taala li baa lëxoo ndax lim am <clears throat> min qudrati ci yaatuwaayu kattan al ilahiyati mi nga xam ne kattan yàlla xaalaa tawfiyati sukkur yi pour matal cantam àddina ci ñun salaa salaam bi at aafin ci ay yoon multiplier mu daafut ñoo xam ne koy multiplier da koy yokk da koy yokkaat wakkaan nekk na adaa ñaankat ba ñaankat yàqulu dem naan arbana yow suñu borom isa alimta gannaaw xam nga aj si naa niñ lottee ama wajaba ba mën ñoo def li ñu war a àlla ci ñun minal qiyaam ñu taxaw bi sukkuri cant ko yàlla ba nga xamee ne ñun dañoo lott lott koo xam ne mënuñoo taxaw pour sant sala fa aji su yàlla na nga ko fayal ala ñun yàlla ñu fayal yonent bi ñun mënuñ koo sant yow la ñuy ñaan nga fayal ñu ko ba ah asami ma nu gën a màgg naa xam ne mën ata may nga ko root dara jaam àll si matu ba xam ne bu màgg min maay bëgg sa may wa mi nekk ak say neexal àll bi nga xam ne xasas too jëgale ko yonent bi yaa moom alati yaa xam ne kan nekk na alande yelloo moom yent bi laa si mea tool yi màgg ya kama huwa na nga xam ne yent bi àllun mooy yelloo li xali liaar yu ndaw ya mag cant ku rëy ak mag yëpp wax dëgg moo ko mee moo ko yéeroo moo ko yéeru faje saaw yal na fekk alacon bi asfinement li ëpp la ak moom aloo moo ko yelloo miin mi lay say neexal woo maa yóbbu ak sa may li yàqoon na pour nekk saari kulool mi ngi ko caw subhaanahu subhaanaka set na mu nekk ni yaa ba tey nga utuñu anaaj ñun fii sukk naa sant gi war satloo ñel si bi yow lañ bëgg a defal ñu ko ñun mënuñ ko àll si bi yàqat laa tàqate xat tàqat la nag ñeel ñu bii ci wasalaam ah kon nag lii waxi wala li ñuy wax jësooli moo ko doon wax nga taa yooyu nekk li seen wax da nga yëg ni kii wax ji ci biir ëttu chef bi am na faiblesse ndax yo- yàlla moom du wax yàlla ne ko yàlla yu santal ñu yonent bi sukkuru jëli kon nag foofu am na nga dégg xasaal ah, mayen bii yoon ak saaf yoo xam bu set war taabiri ak firi alwaaf yi nga xam ne man man boo boo mat la laa taltafit bul gestu li munaaqisatil alfaasi ci li nga xam ne mooy de gëstu baat yi al multarib li nga xam ne mi ngi yëngatu bay na aal saa mu ne wala li muy wax ni eh, baat yi nga xam ne moom moom la def moo xam ne dafa xaw a jaaxal ci waa saaya te bu dugg nekk ci biir wax ji bu mu la jaaxal <clears throat> ndaxte nit yàlla na muy waxee kenn ku ci ne seen woo ngay waxee ndaxte yow ba ngaa wax te sa wax ci li nga yéene nii te amula xam-xam bu ko mën a joxe il faut nga wax wax loo xam ne da ci dana xaw a am kii xam nga santal ñu ñu ñi ngi sant yonent bi ñu ngi koy sant <laughs> wax dëgg yàlla baaxam de <clears throat> kon nag akkaramaana yal na teral ala yàlla yàq yow bi maa bëtil kumali ñaam bëggeelu gaa yi mag yi alxaarifiina ña xam ñoo xam bii lay ci yàlla almuxtarifiina ña xam min faydul asraar ci faydu secret al batinati faydu secret bii al ilahiyati yàq ne mooy faydu secret bat ilaahi xam nga faydu dafa am faydu awalu ak àqam faydu awalu mooy dawal ci biti faydu àqam mooy dawal ci biti léegi nag <clears throat> ñaari faydu yooyu il faut mu ubbi bu biti ba mu pare su paree nag nga ubbi biir nag ba mu pare booba nag ci nga yàq nga am xaaj kaw ak xaaj ci booba kaamil xam nga daf kaamil kaamil boo ko waxee du nekk benn téere bi xaaj koo xaaj suuf ngay boolante boobaa nag ci nga amee faydu boo xam mooy faydu asrar al batini ak ilaayati wa amaatana yal na rañu ala mahabati bëgg gaa yàlla yi waxa sara naa mu dekkañu fii suum rek suñu wax ci groupe gaa yàlla yi amin intaha min imlaaye ala badini waqaa cheikh nag lii du ali alaasi moo ko laajoon ñenn ci fuqaawi ñoo ko laajoon cheikh mu daal leen ko tontu say ñu xam nga si laaj bi waaye ay benn borom xam-xam ci fuqaay ñoo ko laajoon desool yi waxam ji Cheikh tontoon leen nii ah, kon nag wa min xat yi katat katatu ah ci nag laa ko bind wasalaam wasaatuhoo laaj naa Cheikh radiyallahu anhu waaw Cheikh nit ñi di yokk dëddu àddina dëddu àddina dëddu xam nga ñun suñu jëriñ woo ci duggee rek waaw dëddu àddina lan la ci dëgg xàqatu sar faa jaaba tontu arrêt laa xam ne ko lii xaqiqatu dëgg dëgg li ñuy wax dëggu te buñ ko waxee mooy xeeb àdduna boo ko fi doon xeeb dañ doy foog ne mooy nga sol yi déedéet sol yi te faale woo ko lekkal lu la neex solal fu la neex waral lu la neex dëkkoon fa la neex di nga xam ne lii xéwal ak aji xéwlu ji ko aji xéwlu laa faale لولو موي خير ادنا كون نا حقيقه زوجي دغي دغي خير في هناك ما نا نيك تا لا ني خير في لا ني خير ngay خير واي هناك لاكو بغا وخال و موم اتارك موي باي والاراده اك ور غناو خان كو تلي خير xam nga xeeb luy xeeb la yow nga koy xeeb man ma wëcc ko kon nag dëgg-dëgg ba la koy wëcc waaw man daal lii may nañu ko waaye dama ko xeeb xaaral ma ma ma gàddu ko de soo ko xeebee xëy waaw xëy àddina kon nag mu ne kon nag da ngay dëddu lañ xeeb la nga won ko gën a waaw yow nga ne dama dama xeeb àddina man moom dama dama fase àddina kon nag foo moom ak tarku wal ihraas am wa bidaayatu soo koy tàmbali nag atarku da ngay bàyyi wal iran ak ñàkk a fay la nga koy bàyyi te ba nga ko bàyyi sa xel xalaatu ko sax loolu lañ tuddee euh, tàmbali dëddu àdduna wa tamakkunu fa muy dëgëri nag mooy lan al istina al istinaasa mooy al isti al istinaas da ngay da ngay miin bi tarki yi da nga koo bàyyi ba miin ne bàyyi naa ko bi maanaam loolu miin ne bàyyi naa ko mooy fàtte nga ko da koy bàyyi wan ko gannaaw ba kad cadre ci ba yëg ne léegi daal man lii ni ma daan dañoo problème li ma daan dañoo problème tey xalaatuma ko sax bi tarki yi loolu <clears throat> ah, mooy tàmbali boo ca daree nag mooy fàtt wa nihaayatoo yem tam ba mu yeme mooy daamu nisiyaan yi continuer di ko fàtte xataa laa yextaru ba du toqati bil si xelam ngay dema dem xam nga fàttoon moom man koo fàtte sa xel ci demal ba ngay dem nag àgg ci fàtte naa ko ba duma ko xalaat si bil baa waaye gis yii yëpp ñuy wax ko amul fatul akbar munoo lii il faut ngay xam ndax yow yaa ngi koy gis te yàqalu la dara faale woo ko natt la ndax da xam ne ki ma sama waajaa feeñee nii kon nag boo demee ba xam ne benn waay mooy feeñoo feeñakuwaay ci nga mën a dëddoo feeñakuwaay xanaa duma dikk ne mbubbam Xadi Juuf wala mbubbam baax may ma aha ma wayo ndega la nga doon jaar masaa yi nga doon topp de topp toppee masaar ngay teg yow nag nga dem ci buntu saar yi direct kon nag lii ñuy wax coono gudd na waaye du yomb tànk du dangaa dem ba xam nag ma masaay ak mut saay soo ci àggee àggee yow boobaa jalaal bi la wala jamaal bi la sa yoon yow daal ki nga xamante ni mooy kamaal rek ngay xool kon nag loolu nekk rek wa nihaayatul xoo waaye nag dafa am yem eh, garmeel yemuwaay boo xam ne bu ndaw la ak dal yemuwaay boo xam ne moo gën a màgg boobu léegi nag moo tax Cheikh Tidiane moo foofu wa nihaayatu alxosma mooy yemuwaay bu gën a euh, màgg ci dëddu mooy intiqaaru sóoti wal masooli fii da ngay dëddu ko ak kañ dëddu ko ci moom xeeb mu ko def xam nga loo xeeb doo ko doo ko falet loo naw ngay diw maa ko naw waaye loo xeeb xam nga doo ko falet da àgg ci xeeb àddina doo ko wàcce da koy xeeb soo ko xeebee ci nga koy génn waaye soo ko soo ko fekkente xeebuloo ko mën naa def indi changement boo xam nga ne ah soo waaye dama ko xeeboon waaye nag waaye xeeb boo xam ne wàcce ko ko mënta dikkee lu la sax ndax da nga ko xam ne yow bu bu bu changé lu rafet yëre yu rafet ak yëre ñaaw mooy jikko du changé jikko ak borom yow nag da ngaa xam jikkoom jële àddina jikkoom nga bàyyi lu la àddina àddina ak jamaan la jaral xam nga ne jikkoom baax bàyyi na kon nag mooy itiqaar soli wala ma soli fii falaa yaraa du gis asuuda xeeb chey an maanaam lu mu koy xool da ca xeeb sax la gis wala yàlla dafa di geesu ilay jëm ci moom wama daamat fekk sax na al asiya yëf yi xaa imatun di taxaw xaa imatu taxaw fi la silatu tant que yaa ngi gis mbir yaa ngi taxaw nga ne nangam yaa ngi taxaw nii lii mooy lii lii mooy lii xam nga léegi yaa ngi xool gis yi mu ngi taxaw foofu fa soodu kon ba tey xeeb fiaa man loogul contrôle ba tey xet loolu tànk yaa ngay gis copp copp yi jëmm jëmm yi nga naan lii moo rëy lii moo rëy lii moo defee nangam nangam kon soxla nga def euh, xet fasoodu fiya ah, ma dogul xataa isaa tarak ba nga bàyyi al asiya mina nafsi ci seen bopp yëf yi seen bopp ngay bàyyi tout su ko defee wasafta na mellal min jameel euh, kaa kaadooraat na mellalal yépp yoo xamante ni nëx nëx yépp nga gis ne àddina tuur gisuma fi fi naxu te man bëgguma lu nax kon loo xool yëf yi nag naan bii rafet naa bii rafet noo bii nangam nangam a dégg nga léegi dangaa war a àgg ci xeet yëf yi ba loo xool rek xam nga ne ah oto bii beesaayam nii moo bëkkant ba bëkkant dem fële yam oto bu day kënt rek ah ndaxte kii moom day wax ne kii rek dara moo tax boobaa tabax lu mu rëy rëy rëy ak lu mu rafet rafet ak tabax bu tuuti ba nga ne cam ah gannaaw nit a ko tabax dana tisaaru de wala borom dana dee bàyyi ko ñu toog ci kër gi waaw ana kër gi borom ñu kër gi dem comme ngi kër gi yoroon sonal àllaqare nga waroon sonal kon nag moom lii la def nga ne ko def nag mboolem nag ndax mi woo woo saaba dem nag suul ak waa nit photo yi nekkite fi dañuy mboolem photo yi nekkite fi day génn minel xal bi ci xol xay nan jëmu jëm wa asaran ak jeexit lépp luy nekk ci jëmmam ak jeexitam jëmmam ji mooy xool bi nga koy xool nii xam nga ne yow li ngay xool ne mi ngi fi néew fi netaal la jeexitam mooy mbëggeel bu nga ko bëgg yëgatoo benn mbëggeel boo xam ne nekk ci yow ah booba te sawaay lii nga mën a amee nag euh, dëgg nga xeeb ko ci bi ci xeeb ko ci biir ndax loo doon bànneexoo tey neetul sa bànneex <laughs> ah la nga doon naqarlu tey naqarul turam ndax lan ka ko feeñee moo tax su ko defee ne kii bànneex bii doon la convoqué ndax bànneex moom dafa lay convoqué bëgg ma nga ne ko bëgguma la bëgg kay mooy kay feeñee ko ñaar ñii yow la emale sa doom su baaxee bëgg nga bonee bëgg nga xam ah ah kon nag mbëggeel ku ma tax rek ka ma bëgg la waaye du yow la kon nag falaasoo la amul sardu bu fekkente ni yii demul fa innahu fi haasal aal yatamakkanu dana jàpp ne ni coom ubbu saati muqaddasa boo demee ba àgg fii ci lay jàpp bëgg jëmm ju set juñ setal ja jëmm juñ setal ja xam nga waxuma ju set jëmm yow mu nga mën a bëgg mm-hmm. waaye jëmm ju set da mënoo ko bëgg waaye mooy jëmm ci setal ja ku ko bëgg ku bëgg nga ko set kon il kuntum tuhibbuuna fa tabi'uun coon kii mooy muqaddas ki nga xam ne moo ne ku ko topp mën nga topp kooku ne mooy mooy ku set ka kon nag kii boo ko defee ci nga mën a am mbëggeelu kii booy am mbëggeelu kii rek am mbëggeelu kii xam nga nit ñi dafa da nga bëgg a saatu xud saatu xuddusi waxuñ saatu xuddusi saatul muqaddas saatul muqaddas moom nga mën a bëgg ku kuñ setal ka ah. waaye mënoo bëgg ko set xam nga loolu mooy léegi sa yaram yi lu ko tax a set du ruux ndax kon kii bëgg ruux ku bëgg yaram bëgg ruux kon nag li tax nga bëgg kii kat waa ji nga xam ne moo ko setalee kooku moom laa moo ko bëgg ndax bëggam jënd kon nag ku bëgg kii bëgg nga këri loolu nag moo tax lu ñi bu ne saatul muqaddasati jëmu juñ setal luñ setal am na ku ko setal boo ne jëmu ji set ne nag waa xam nga kenn seetlu ko waaw boo ne kuy seetal nag ñu dégg na ah kuy seetal de am na ko ko seetal mm. kon nag nit ñi mënuñoo dégg ci bii waaw jëm ni yàlla ju seet ja au lieu ñu ne jëm ni yàlla ju seet ja yow man laa jot ci ju seet ja duñ seetal ja nga mën a jot mm. maa ngi lay loo xam ne boo ko déglu <laughs> dama xaw a xóot tuuti ci lu ko arab mm. ah xawal gën si bi ndax nga may gis <laughs> ndax dina bokk <laughs> dégg nga de su ko defee lii bu fekkee nag kii kii firi kii firi lu ko arab dafa xamut ismu faay ak ismu fon loo dégg luñ jëf loola xam nga kon am na koo jëf kon nag dégg ka ko jëf ki ak kañ jëf ka kañ jëf ka nag moom nga mën a bëgg ndaxte mooy wëccu laaxu laaxu wëccoo bi kon léegi xam nga man laa bëgg laaxu wëccoo bi nga bëgg waaye ku bëgg wëccu laaxu bëgg na la roow wi ku bëgg waccoom bi bëgg na roow lii mooy dem ba xàmme nag bu ñu waxee da ngay xàmme fa nga war a teg sa bëggin nit ñi nag dañoo seen bëggin dañuy tarfet tarfet mooy lan yow yaa ngi ko ne këy ci biir nga jot déedéet boo dee bëgg nga ma nga bëgg toppal laa qul in kuntum laa fattabi'uuni topp leen man Muhammad mii ma rasulullah ndax mën ngaa topp laamu déedéet nan nga mën a xam bëgg mën ngaa bëgg laamu déedéet boo bëggee wuccuraan bi rek bëgg nga laaw boo déggee ñoom lii moo bëgg yàlla dañ koo xam ne waaye wuccuraan la bëgg waaye mën ngaa jëstilaa ba di ko bëgg ah moo tax fii nag boo ah <laughs> lii lii dafa lii lii lii du ñaan nga koy may dem ba xam ba dem xam installation bi ak tëralin ñim tëddee kii mooy kudduus kii mooy muqaddas ah? ñoom ñaar kenn ko mel xàqu xàqu kenn ko wax xudus léegi ka xam ne muqaddas kenn ko wax kon nag buñ ne xudus mooy numéro deux muqaddas mooy numéro mooy xudus mooy numéro ah? nag amul un deux xàqu am na benn am na benn ñaar <laughs> ah? noo koy bëggee kooku dañ cee def ci xàqu dëggu nga cee def moom kooku moom dem ne méng rek ne tekk rek ne méng ne tekk doo waxat te doo wax waaw waaw den mbëggeel mbëggeel dañ wax ay xeetu mbëggeel la keneen mbëggeel ak kii la xul eh, ak ah, jiw xam nga ko dégg na bëgg naa ko mooy faale naa ko kon di nga yow nga ne yàlla nga faale waaw yàlla mënoo koo faale ndax xamoo noo koy faale boo faalee kii kii moo xam niñ may faalee ndaxte muqaddas moo xam quddus ni mu mel kon nag yow toppal kii soo toppee na mu defee nga defee ne moom da mën a jot lan jot moo tax boo ne allahuma sëlli doo dikk ne maa ngi julli xam nga léegi yàlla ne man def naa salaat inna laa malaayikatu yusalluuna ala nabi yow ba nga dikkee ñu ay julli ndax da ngay dikk ne julli naa yow yàlla maa ngi julli man nga déedéet da ngaa dikk ca moom nga xam ne mooy muqaddas ne ko allahuma salli ndaxte yow xam naa ne boo ma nangulee sama salaat ñu nangul ma lii tax ñuy julli ci allahuma kon boo man kenn mënta julli ci euh, quddus muqaddas moom ngay sàkk mu julli la muqaddas julli la buy jullee nga julli ñii ne ba tax julli yi ku ne mën naa julli ci yéen ci moo tax sant loo xam yàlla boo la santee loo dangay dem ci ka ko ka ne ko man de mënu ko yow mi ko man ko ci jàpp mu ne waaw koy ndaxte kii fiir naa kenn du ca jot ku dul man waaw góor moo tax bëgg gi nga dikk gi nga jaar ci moom dafa neex moom moo tax kii ñu ne ko ustaasana wa wasilatina yow yaa ñuy jàngal yaa ñuy jokkale ndaxte yow yaa tax ñu bën a branché wu bu tax la mbaram déggu la bàyyi na ko mu falaw falaw laa ki yëpp xal xaq xaqan bu taxuloo ne yow xàqu day de càqoom nga wamaadiri kenn ko xam yaa tax ñu jot ci de waaye su ko yow kenn jot seetal su ñoo jot ci loolu su taxul yaram da yaram dañ jot ci loolu aha moo tax lu ñu la ko xoolee rek fii lañ la ko génne danaa tabla amis ba dafa defee um bi ci yow bii moom sa bopp ñu war na ko rek bu taxuloo ne si yow nii kon xol mi nga xam ne moom laa ko ah mënuma ko okk mënuma ko teg kilo yow mii laa koy teg salon ah ah ŋaañanam ŋaañanam ah okkal ma okkal ma xam nga xol moom la yaram moom la xol ne okkal ma ŋaañanam ŋaañanam ah am xol fu ne mu ne du la ŋaañi du la okkal fi nga bëgg de waaw yaayu yaa xam li leen fi des fi ne okk nga okkal ko sa bopp waaw kay <laughs> foofu ngay mën a okkee nag kon nag lii nag boo ko defee nag ci ngay bëggee nag saatul muqaddas lay lay lay dëgg dëgg dëgg yàlla waaye waaye yàlla yàlla fayal wooy saa tamakara bu cadré ba dëgër xam nga fi ngay kole kolewu boo gisee wi dalaasi ñu tuddee ko wi dalaasi xam nga wi dalaasi mooy firi kol moo lay kol yow da nekk morceau bu décollé moom li lay collé ci muqaddas mooy wi noo cay kono astafirlah salaatu ala nabi laa ilaha illallah léegi nag kon yow mii yi takk-takk yi nekk yow bakkan bi am na am na am na takk-takk leneen si ay bon xol bi am na ay róo gi am na taq takk takk-takk yi nag boo jëlee astafirlah salaatu ala nabi laa ilaha illallah sa kon nag li nga xam ne moom ga war a kole woo ceef muqaddas dañ ca mën a kolew moom nag boo cay kolew rek mi ngi mel na courant boo koy laal bu la marché xam nag yëg xëj a machine bi ak ki yow mii initial lii moo indi nag ñu tuddee ko ustaasana ak wasiilatana léegi nag da ngay boolante ak ñaar salaatu ak salaam ngay mën a boolante mën a branché wu ci muqaddas ndax salaatu moo nekkoon ci quddus mu salaam moo dikk ci muqaddas nga boolante ak ñaari mën a am plus ak moyen mën a am courant leer na waaw boo bëggee. tàngal ndox nga tàngal ndox dégg nga de <coughs> billaay yal na yàlla fayal seet si ko kon ñun ñoo xam fii nag fa nga mën a amee nag mahabatu sal muqaddas ndaxte yow amuloo setal rotation e, bi wax naa la trois fils yi nga xam ne mooy wàcc moo ko wàcc mënoo cee jëlee courant boo ko fa defee da ngay tasaara sa kër day def fa ngay mën a jëlee mooy ki nga xamante ni mooy muqaddas bi mooy cinq câble yi nga xam ne moom lañ jàll ci ci transformateur transformateur boobu moo ko moo ko moo ko moo ko ko wàññi ko kooku mooy muqaddas ba mu ko wàññee nag doog ko indi nag def ko beneen transformateur moo tax di nga moo ta salaatu ak sala ak salaatu ak salaamu ak rahmatu ak barakatu ñoom ñii lay jaar par doo ko mën dikk ci woon il faut mu jaar foofu su fi jaaroo ndaxte salaat mooy mu tóol salaam ak euh, salaam ak ramat ak baraka ñooy trois kaaba ñu dikk wàcce ko nag ci transforme ci boobu wàcc mu wàcce ko àtte beneen nag ndaxte fi ne yow am nga tam itam yooyu balaa moo dikk ceew nag dañ koy wàññi ba mën ko ah kon nag maabatul muqaddas bi nii la ko defal fii ba nga mën a amee nag maa hubbu saati fa isaa kama kana hubbu saati al muqaddas bi temps yoo xamante ni cadre na ci bëgg jëmm ju juñ setal ko saaba day dem day dem même al aqwa nekk te boobaa temps yoo xamante ni lii ak dem na ci dem ko nga am maabat saat muqaddas nekk te fi day def meles ba fi gisee dara xamul tax ndax courant bu la maasee ba sa yaram lépp maas danga fi mën a see gisee lii nag mooy saat muqaddas boo ci àggee moo tax mu doy waar saat muqaddas day demee sa lépp ba doo fi gisati dara dàqale yëpp sa lépp lay demee dàq yëpp boobaa nag fii ngay amee nag fànnaaw boo xam ne fànnaaw bu xar xam nga kole muy décolle kol baa dëgëru waaye kol bu dëgër surtout yàlla bu la ne napp boo dikkee ci amari bam kole da nga maam jël da nga maam eh, astafirlah salaatu ala nabi laa ilaha illa ne la kol nga ne ci nekk xam nga lay def subhaana rabbika rabbi xamu ne xamu soo pare salaatu fati laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah xam nga doon waxat leen booba xam nga ne dee nga de soo xamul <laughs> salaatu fati ba dikkee ba nga xam dul ba ci mujj ba ne taf nga commencé laa ilaha illa allah laa ilaha illa ba tax tariqa leen moo moo moo sell moo sell moo fort kon nag boo amee fa isaa way saa tamakana ubbu sàkk mu ko desati saabati al aqwaat nekk teef yépp dañuy dem wa ma mooy xat ñu effacé ko mbax ko mooy day tëj ba tasar te kat nit ne fàng wa taraat ji baal tasi ba de jaabire way tamru marasaab boobaa doj boo ko xoolee nga fa ne ñu fi fekk dem nañ loolu bu la ko waxee waxut doj yi dëj yi mooy nekkite fii yaa ngi xool yow foog na mi ngi te fekk dara nekku fi loolu nag xaalis ba ku ma ko woon saa ak wax muy xat falaa ay doo fi gisati jëm wala asara doo fi gisati jeex bi maanaa jëmm ci ak la jëmm jay def xam nga jeexit mooy oto xam liy liggéeyam liy jeexit mooy daw doo fi gis oto dawin oto léegi da ngay xam ne oto amut oto buy daw amut safar buy daw oto amut client amut lépp kon nag kenn nekk ci kenn ko di ko kenn rek ah léegi seqe bi liñ bëri bëri bëri ndax am na bu mën a demal boppam mukk sa nopp yi ak si cëli ndax am na bu mën a dem boppam kon nag yow mii nag kon nag su ma gisee da nga ma am baaba di def ay jabale wala xef ne xef xefi nii damaa xam nañ ko xamal rek waaye su ma ne kippi doo xam li kon nag léegi rek lii mooy max ku nag wa maa xat falaa ay na walaas falaa yëtt sawru du fotowu ko tuuraxaa muy toq alal xam di ci xol bi maanaam muy xolam di toq mu fi gis leneen déedéet waaw lii nag nit ñi foog nañu mën nañoo de xëy tarbiya tarbiya àgg fii <laughs> fii balaa nga fi àgg moom xoolal cëru bakkan moo xam nga tànk yaa ngi ci cëru bakkan doo dem bëgg ku la gis bëgg ku la xool bëgg ku la bëgg tànk yaa ngi bëgg bëgg du dem léegi nag su ko defee ngay dem nag lépp loo xam ne moo fi taxoon doo am lu ne si xol foogoon naa foofa laa suuda wala ma suuda fii xam nga xeet ak ku ñuy xeet booba ca nga nekkoon fii boo ci accès xeeb ak lu ñuy xeeb nga fa dugg si tant que addula fi boo def def naa dëddu lii mooy dëddu suudu xaq yi mooy dem ba gisatoo fi xeeb xeebatoo fi ak lu ñuy xeeb ak kuy xeeb sax bi kuy xeeb fi ngay dem nag jeex tàkk loolu la wax fa laa su laa suuda wala masalu wa bi aasi isaarati bii joxoñ na xam nga dama laa joxoñ ni nii yàqula asadli rajo anu xii na su ila bañ ko laaj xani su di ñaawoon sadli waaw ñi naan xeeb addina luy xeeb addina faqaaloo maama anaaw innama dunia nekkul addina kulaa lépp bi jamii ma an lépp loo xam ne fi am i coom ah dafa mel nag ay xeer mulqaatin yuñ sànni fii falaatin ci àll ma romb alehaa ca xeer ya maarin ko romb fa in tarak bu rombee loolu moo tax ñu ah, boo ko kii kii kii day mel boo gisee maarin bi day mel na nuun te fekk raal dégg mu ne dafa mel na nu ma la koy misaale ci misaali sab bi waaye boo dégloo Cheikh Cheikh Diagne misaal bi ñu génne nii déglu misaal sab bi bañ ne ko luy change luy luy dëddu àdduna mu ne àdduna yëpp daal soo ko borantee day mel na ay xeer yu sànni ci àll ba ko defee marra romb ale xaaj toom maalik romb benn romb kat romb xeer ci àll ba xam nga kon ci bopp moom moom gis na fi àll gis fa ay xeer ak yow romb moom gis moom xam nga ne ñun ko romb nañ ko de <laughs> ah moom dafa mel ne benn ay bokk dafa fekk ay xeer ñu sànni ko ci àll ba fay taraka bu rombee bu maanaam bu bàyyee almaari kay romb ah? mera bu fekkente ni kooku e, fayin taraka borom bi almaari li teel kër xasaay xasaat yooyu xeer falaa yow du duñ ko compter suudal. ah mu ne su fekkee ne yow yaa doon ci àll ba tey nga seen xeer yi sànni ci àll ba nga su fekkee ne fa in taraka almaari li tilka xasaat bi maanaam. bu fekkee ne bàyyi na li tilkal asaati laa yu on soo soo suudan bi maanaam bu ko bàyyee maanaam bu ko fa bàyyee faale kon duñ ko continuer dëdd na marra xaleha maalin fa in taraka al maali li tilka xasaati laa yu on suudan bi maanaam su jàppee ni du tax su sànnee xere yi mu romb ko fa su ko rombee xamul lu xeer xeere kon xam kon du ko kon ko dëgg kon dëgg-dëgg yàlla xam ne day baax na waaye nag ñun daal li ñu gënaloon mooy ñàkk faa gis àll baa xeer ya ak li ko sànni waa ama sikuro waa ama masukkira naka nga xam ne ñu moom la tudd min soodi ashaabil ma maqaamaati si xëy di continuer ba tey daf jaar wax yi soog mu indiwaat léegi nag li wax ci affaire dëddu gi nga xam ne mooy borom maqaamaa ji mi maa war a xaasal martabati dégg nga de liy wax ci li nga xam ne mooy borom maqaama kaw yi mooy passé na martab bii si li wax ñoom bañ gis seen xeeb ko passé na bii li ma la wax kon ji ko kon ba ko ba ko seet di indiaat ñun xam nañ ne lii moom di dëdd mu ne amama waa amama su tëramee suuli ashaabi naqamati mi maa war a ahasal martabati wala taxtaru du toq addun yaa adduna bi baari ci xolom xaataa yeesara ba muy xeef ci moom borom naqaama yi moom adduna toq seen xol ba ñu koy tuddee na dëdd ko xam nga boo rek na ko dangaa gis loo xeeb ñoom bi ñu fi gis adduna fi xeeb adduna <laughs> ah, ah. moo tax ñun ñoo ko ñoom wala taxtaru addunia bi baalihi xaata yasadu fiha ba bu koy xeeb de boo ah sama xel dañ ne ko waaye dama ko xeeb kon sa xel lam dañ de jàpp nga am na ko ñoom borom maqaama yi nag seen xel dudd àdduna bi sax ba ñu leen xeeb nag adduna la wa inna maalahum wér na am fi suudi xaqiqatun xaqiqa waaj ñoom seen dëdd àdduna benn xàq rek lañ ci am boo yow albuudu mooy dañoo sori an kulli lépp loo xam an kulli lépp loo xam laa yulaa imu dëppoo ku la waaye din bépp benn min asaabi maqaamaat yi ci borom maqaama yi loolu mooy seen dëgg-dëgg dëdd mooy kenn ku ne dëppoon ak sa maqaama doo ko doo ko fale loolu la wax mooy kon mun a xaqiqatun waahidatun وإنما لهم في سوري حقيقة وهي البعد عن كل ما لا يلائم كل واحد من أصحابنا لفل دفورك سما خرم فعلا كم لجي آدية ما خرم آدية لفل دفورك آدية وخذ ذلك آمدية ما آمدية لفل دفورك ما خرم وخذ ذلك كم محمد مامدية Muhammad it dafa am maqaama muy maqaama Muhammad Muhammad yi am maqaama maqaama Mahmoud gis nga lii lañ maqaama ci biir kenn ku ne ka nga xam ne mooy sa taxaweekaay mooy sa maqaam ñoom nag kenn ku ci nekk lay sa maqaam yow léegi xamuloo ne ci kat liñ def noonu soo defee ni ñoom noonu la ngeen taxawee ndax man mën naa taxawee ni baaba taxawee ndax baaba mën naa taxawee ni ma taxawee kon nag soo xamul nag gaa yi taxawee kenn ku ne sa maanaam ku nekk yàgg sa waay ah sa waay léegi mën naa nelaw say bët mën naa regg sa biir mën naa xool si lii kon nag ñii di mag borom maqaama yi ni lañ jox ni lañ jox ñoom daal lañ leen tegal rek loolu lañ xam kon nag ñoom dañoo sori xan kulli ma laa yulaa'imu kullu waahidin min ashaabil maqaami maqaam aw ah, yoojibu fii naxtan wala luñ la gis ne dañ koy sori ak wàññi léegi loolu duñ ko dégg aw xalaat wala mu dafay fiix mi la samale wala lii daal su ma ko defee day mel na manqué day indi ak manqué ñoom waxuma xeet dañ koy sori duñ ko sax jege lii lii wama danga wama si waa asa cheikh nag mu ne lu lii falaasoo du tudd fi see it wasalaam lii rek mooy dëdd lu dul lii du dëgg li nga xam ne man de diw day so day diw moom day kaane day ñamam daf koy kaane ndax xeeb àdduna ñamam moom moom lu may lekk mooy ay ay fonde lay lekk ak et da nga moom <laughs> ay ngurbaan ngurbaan man day dama dund ngurbaan na dem soo dem soo dem na nga dëddoo ceebu ceeb penn bay nga boo booy dëddoo ceebu bay bu dëddu ngurbaan mm-hmm. ndaxte ngurbaan bànneex la ceew mm-hmm. léegi nag ñam la yëpp ñun nag dañ ne waaw mburu baa nag ceebu benn mbay pour ñun benn na kon nag ndax ceebu benn mbay ku ñu ko ceebal ñu a xanaa ceebkat bi ñu ne kon ceeb ceebkat bee ma neex bii rek daa ci <laughs> a ah, ñun ñun yow fi ne mën ngaa gis nañ cee madame moo togg ceeb ah man madame mën naa togg ceeb fu mu jëlee fu mu jëlee nga war a yaa joxe dépense déedéet kon nag <laughs> ah ah nag da war a xam lii lii lii du lu ñuy toog da ko xalaat da dem ba dëggu ko soo ko dëggoo du nekk ci njaabal xam nga njaabal day gaaw a yàqu waaw njaabal <laughs> njaabal mënut a mënut a def kon nag lii Cheikh naa Ahmad Tijaan nee na mooy dëgg wama siwa asa lu lii fala suuda fi si in wasalaam kon nag لا تربي لتغوي انتهى من إملاء ألنا عن الله أيوة شيء يلا فعلوا شيء